mbokki internet sunugal 24 point net pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen geex di leen jaajëfal seen émission pël fun time nag nee naa leen fu nekk lay xew ba tax fu nekk lay dem tey ñu ngi fii ci Yoff ginnaaw cimetière yi ci fi nga xamante ne mooy parking euh, pro doomu yaay jamaïcain ginnaaw bi ma seeti jee liiru jaan seeti ji Baye Mandione seeti ji wulli tey nag daj dëpp gi laa seeti ki waral coow li muy jamaïcain le jeune promoteur vitamine de sa génération ban mi maa ko tuddee te daw ma ci yoole sama xarit bi jamaïcain du ma def lu dul ne ko nuyul ak soppe yi nu yokk fansi ak euh, euh, ñi lay bégee ñëpp ndax nag nee naa la mbër mi dina am tur kenn du ki koy jox xaalis mooy kii moo waral coow li tëggoon diggante Baye Mandione xooyantaan tëgg diggante wulli liiru jaan yóbbu ko ba Gàmbi stade Bakaw ba kenn du ko fàtte kenn mos sa gis lu mel noonu maa leen pël maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la nuyu bu baax di nuyu sa caméraman Dóor waar maa ngi koy ziar moom ni mu tuddee boppam tur tur na borom Dóor waar la tuddee boppam te Dóor katuwaar la ñu ngi koy jaar bu baax di nuyu waa sunu gaal 24 di nuyu directeur bi topp sama xarit maa ngi koy ziar bu baax a baax fi ñu war a njëkkee nag mooy sant yàlla bu baax a baax a baax julli Seydina Mohamed sant sunu ñaari waajur di sant sunu sëriñ Maulana Cheikh Ibrahima Niass di nuyu sama papa sama turandoon Mamadou Mahdi Ibrahima ak doomam Cheikh Baye Mahdi di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi nekk ci réew mi yëpp maa ngi tàllal ñëpp loxo di sàkku si ñëpp ñaan di ñaanal ñëpp pël di nuyu waa Gambie comme ni nga ko waxee si njiitu réew mi Gambie muy Adama Barrow ba ci suuf bàyyiwuñ kenn képp kuy doomu Gambien rek maa ngi lay ziar di la nuyu di nuyu famille yi ma am foofu samay nijaay samay yaay samay tonton samay xarit samay am di jàmm ak sama staff bi nga xam ne ñoom laa àndaloon di liggéey liggéey bu am solo bi maa leen ziar bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay. macha allah jamay kee nga tëgg bés bu nekk bis bu ne tëgg nga ko tëgg nga fi Big Pato wuli coow li bëri lool maanaam tey bu ñuy lim li fi jot tëgg mun nañ ne neex na. kenn du na neexut neex na ndax tey jii nii bokk nga ci promoteur yi nga xamante ne ñooy jëmale làmb kanam bokk nga ci promoteur yi nga xamante ne ñooy dundal làmb tey nga ne nga xaacu nga ne da ngay jël combat yóbbu ko ba Gàmbi xam nga ne Gàmbi senegal dafa sori làmb ji am coow làmb ji jeex coow li bëri tey mun nañ xam coow jamaykee xooyantaan bàyyi ma ñoon wulli liiru tey mun nañ xam coow li lan la coow li bëri na waaw pël Euh, li nga laajte dafa am solo nekk na làmb joo xam ne avant pendant après lépp coow la te làmb dafa baaxoo coow bëri na coow waaye bëriwul problème boo xoolee nit ki nag day yàlla dafa am nu muy jël def ko say mbir te bu ko yàlla di def say mbir dang koy sante yàlla ndax wax dëgg yàlla amuñu lu kenn amul defuñu lu fi kenn deful sañuñu lu kenn sañul kon bu yàlla defee ñun ñu nekk ay ndaw ñëw ci làmb di organiser làmb di participer combat yi ñuy tëgg yàlla di si def coow te muy nekk coow jàmm tamit dañ koy sante yàlla ndax wax nga ko sànq ñëpp fàttewuliku nañ diggante wuleeg bi pato laay Pythagore ñàkk jër nekkoon boo xam ne réew mi yëpp ñoo ci doon waxtaan bi ñu jógee ci loolu tamit ñu duggaat ci combat bi mu demee waat noonu kon loolu dañ sante yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. tey Baye Mandione nekk euh, mbër bëreex ku nekk tàkkusaan bu ne mu bëree ko tey xoyantaan tamit nekk roi des arènes Gambie lan moo tax nga. inspiré wu na da ngay boole xoyantaan ak ma Mandione tey mun nañ xam lan moo ko war. waaw li ko waral nag euh, bëri na ndax Baye Mandione di bii mooy première fois ma tëgal ko làmb sama première na ci làmb Gora Sock Baye Mandione laa tëgg. te yaakaar naa képp ku ñëw sa première journée ci làmb nga tëgg ñetti grand combat yu toll noonu defee ko Dakar yóbbu ko ci région yi am na loo bëgg a wane ci làmb te am na loo bëgg ci làmb yàlla dimbali ñu génn seeg jàmm bàyyi ma njoon wax dëgg yàlla ñu déplacé wu jëlee ko fii yóbbu ko ndar mu dem bëree ji ñu amoon yéene pour tëggaat ko tamit ndax ba tëgg nañ ko mu ñàkk tamit warul tax ñu bañ ko tëggaat ma ne nag man ci làmb laa am làmb laay dund te làmb bi ma am mooy espoir boo xam ne am na fu nekk ci àddina waaye bëree dóor ak aada bi ak cosaan bi nu mu amee Sénégal ak Gambie rek la am comme Sénégal ak Gambie rek la am yàlla dimbale na ma man sama yaay nekk Gambien sama papa nekk Sénégalais te li weesu li amoon gàmbi dafa am lu ñu waroon a jàngal ci lu bëri Gambien yi gis nañ lu weesu gannaaw bi jaaya jàmmee tey ne du jógee foofu coow li bëri ñëpp dañuy daw di dugg Gambie tey boo ñëwul suñu kër da ngay fekk mu festep mu wane kon ñun ñaari réew yi jàmm rek moo fi war a am bu Macky Sall ñëwee ak Adama Barrow seen diggante mel nii ratax jàmmoo bi am xam nga ñëpp rafetlu ko mu am loo xam ne nii ci diggante Sénégal ak Gambie la nekkoon muy pont Farafenni adduna bi yëpp bëggoon ko chaque année du sotti yàlla def mu sottal ko si ñoom ñaar seen diggante ma ne man lii dinaa ci participer li ma ci participer mooy làmb laa am ci làmb laa nekk dinaa taxawal combat bu mag ma yóbbu fa signature contrat bi sur bu ñu koy intégré def ko surprise. yàlla def ma jël bàyyi ma njoon waxtaan ak moom ba d'accord boobu roi des ni mu ngi ko am komba bëreegul ma ne leen léegi mën a bàyyi ma njoon ña roi des combat royal bi dafa nekk en chef Gambie xoyantaan ak leket ñoo koy bëree ku ci daan dinaa la booleeg moom yàlla def xoyantaan daan bi xoyantaan daane ma seeti ko pour taxawal combat bi pour suma ko taxawalee ñu def foofu seen première face à face affaire bi xawoon na dëgër négocier combat bi yàgg bi mu yàggee nag yàlla def ci diggante bi ñu immigré pont bi mu ko tamit ma ne amul ban problème du tax comme amoon naa yéene bi amoon naa mébét bi dinaa ko def dinaa ko def ci beneen anam bi combat bi taxawee may tëgg fii sama journée avril indi leen ci ñoom ñaar kii ma solal ko drapo Sénégal kii ma solal ko drapeau Gambie ñu ñëw présenté wu ñoom ñaar seen ci ci stade bi mu rafet adduna bi yëpp rafet lu ko ma ne man dama bëgg diggante Sénégal ak Gambie nekk benn ndax mooy sama rêve te su amee seen nekk benn dama ciy gagné suñu nekkul benn duma ci gagné ndax waa Gambie tey bu ñu loroo ma loru samay famille samay côté yaay Sénégal bu ñu ci loroo ma loru samay côté papa kon ñoom ñaar luy dëgëral diggante bi ak li koy rataxal comme ni ko loon sunu papa Moussa Ngom di doxalee man ma war a taxaw ci loolu. loolu moo tax Sénégambia Sénégambia loolu moo tax ma jël Baye Mandione dem jël roi des arènes Gambie boole leen ne nag comme Baye Mandione yàgg na bëree Sénégal musul bëree Gambie bàyyil Baye Mandione dem fekk ji roi bi ñu defee ko seen dëkk biir Gambie. ba tey ci coowu làmb ji rek la ñuy ñëw tey jii nii euh, balaa ñëw yegg si si làmb ju yàqu ji dañuy ñëw ci wàllu sponsor yi ci sa diggante ak ki nga xamante ne mooy xoyantaan parce que moo wax tamit ñu dégg nee na bi muy ñëw Sénégal cinquante mille francs nga ko jox ba muy ñëw xamoo yan coono la daj ba ñëw en plus beneen yoon da nga ko woone ko da ngeen di dem kër euh, président pour da leen dalal mu ne la non du ma dem puisque teeloo ma ko wax lan moo tax bi nga waree dem teeloo ko wax ne ko tey dañoo war a dem seeti président euh, euh, tamit président foog naa ne bu wootee est-ce que nit ki tamit nekkul ne loo jàppoon mun nga ko bàyyi mais ku nekk tamit ak sa xel laa foog waaw bal yooyu sax bëgguma ci di ci waxaat kom wax waxaat wax waxaat xaw ma lan lañ koy waxee. dafa war a leer parce que lépp ci coowu làmb ji la. pour mu leer moom bi muy ñëw dakaar man dama jox ko un million franc CFA eighty five thousand dollars matul une semaine pour mu war a ñëw Gambie moom buy jógee Gambie di ñëw buy jógee Gambie di ñëw Dakar Sénégal leer na ma du fay paas dix mille franc kon su ma yëkkatee cinquante mille jox ko ko ne ko na ko def transport wàccoo naa moom pour mu war a jógee Gambie ñëw Sénégal man nag gàntaa oto ba mu indi ak nit ñi muy indi ak mbooloo mu koy indi loolu du sama sama yoon warul nekk ci loolu ndax si ñëw maak nit ñi si ñëw maak mbooloo mi man moom laa signé contrat te moom laa bëggoon mu ñëw présenté wu fii si Sénégal waxuma ko mu ànd ak mbooloo waxuma ko mu indi oto waxuma mu indi ñeneen su fekkee dafa am ñu am yéene pour topp ko ñooñu yaakaar naa moom war nañ war nañ ko mën a jaral ñooñu génnee seen poos fay paas ñëw Sénégal ndax ku ci bëggoon ñëw Sénégal yaay fayal sa bopp ku si bëgg a ñëw Sénégal pour topp seen mbër yaa war a fayal sa bopp du man maa leen war a def indi man moom mbër mi ma am ak ak kenn ku mu war a àndal ci moom pour ñëw fii mun na ma wax ne ñooñu mun naa leen jox paas te cinquante mille ku la ko jox transport bu ko bu jëloon oto bu solee essence bu fekkee essence la utiliser bu ko solee mu indi ko yóbbu ko kon wàccoo naa moom. ba mu ñëwee fii ba ma leen wooye dama leen su ngeen ñëwee mu utal leen fu ngeen nekk lépp ñoom seen jëm bopp ñu ne ma ñoom mbuur la ñuy wàcc am nañ fu ñuy nekk ñu wàcc mbuur kon yaakaar naa loolu lu yàgg ba léegi warul toog ba jamono bi muy toog naan bi muy ñëw Dakar cinquante mille laa ko jox loolu ay détail la cinquante mille yi ma ko jox waxuma la Gambie tam na ko yóbbu Mali mooy moom nee na bi bàyyi ma ñoon demee Gambie yaa leen dalal hôtel di leen jox lekk naan am na benn daje bi ngeen daje woon waaye xoos euh, euh, dafa yàgg foofu ba añ sax këram la ko yónnee añ bi fekk si ko foofu xam nga dafa am loo xam ne sax nit warul toog di ko wax man tey dama jóge Sénégal dem Gambie tëggal ko làmb même su fekkoon ne nii dañ dem ñu koy jël ma déplacé fii ay journaliste yóbbu leen ba Gambie li ñuy wax teraanga diggante Sénégal ak Gambie moom ci boppam mënoon naa toggalu añ këram ah jox ko gaay ñu añ comprendre nga ndax fii tey yéen ku ngeen demoon nii dem jëli mbër waxtu lekk fekk leen këram dina leen teral waxuma laak nag ku déplacé woo réew ba réew yaa ngi dégg man bi may dem di ñi dem White House ñuy def interview ak Lamine ñoo àndoon ménagère am mu ngi fa émission bi balaa ñoo pare trois heures yàlla dimbale na ma ménagère am ci boppam laa joxoon xaalis na ko dem uti jënd ci añ lekk te añ yi ñu jënd biñ ñëwee mbër yi mu àndaloon bokk ak ñoom ikkiri ñoo añ añ yooyu noonu ménagère mun na ma seede mu ngi fa kon loolu sax moo jërul toog ci site internet wala ci télé di ko wax ay bi mu ñëwee White House añ sax laa jëlee sama kër indi ko bu jëlee jul añam añ këram indi ko kan moo ñu war a indil añ ndax ñun ñoo ko fekk même ñun lu ñu fa am am connaissance moom fa la dëkk te ñun moo tax ñu déplacé wu Sénégal daj ay moyens dem ba Gambie pour interview ko kon loolu yaakaar naa su su jëloon cent mille francs wala deux cent mille francs def ko ci lekk ci añ warul toog sax di ko wax ndax loolu du ndam ci moom. ñu jàll ci li nga xamante ne mooy sponsor yi moom dana woon du sol sponsor mais dina am benn sponsor boo xamante ne dina ko sol ndax xamul nu muy def ñooñu te olof Ndiaye nee na boo xamul nooy def nit ki nam la a tax xëj na ni ko ñu def moo tax mun a ñàkk sol seen li nga xamante ne mooy seen sponsor ba tax nee na yaay promoteur bi yaa tëgg combat bi bàyyi ma ñoon Sénégal la dëkk yéen a ànd kon maanaam ci wàllu mystique lay xool ba tax boo ko joxee euh, blouson moom du ko sol mais sponsor bee lay sol léegi lan moo waral critique boobu lan la. yooyu yëpp moo ci ñëw ay détails la man maa ngi sant samay partenaire ku ci mel ni sama papa Ndiol Dieng borom BMG maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu estafam yëpp di leen nuyu bu baax a baax a baax comme li wax dafa am solo waaw comme li ma ci waxoon rek laay waxaat man loolu dama koy comprendre nit ki lu mu xamul munoo ko ci mere ndax ñoom ñàgg nañ di bëree tey bu demee ba Gambie promoteur yëpp téye seen loxo ne duñ tëgg làmb ndax làmbu ji dafa seer ku fa tëgg mbër perte. keneen jógee koo ci biti ñëw pour suqali làmb ji war nañ si jàpp war ko teg loxo ndax man tey gars yi ñu ngi may dégg kenn mësu fa tëgg làmb dem jëlal sponsor defal ko blouson wala nga koy defal ay bande annonce ci télévision fu ci mel ni Fitter Média mosul am man su ma demee di ko def pour sponsor yi nekk foofu ñëw mun leen a jàppale ndax man mënuma fa toog di fa tëgg làmb abadan même su may tëgg fii gars yi bu ñu bàyyee xel làmb Gambie xam ne mu ngi avancé suba beneen promoteur tëgg fa làmb ñu jàppale ko ñoom ñu avancé suqaliku man loolu laa ci jublu kon su ma demee mu ne su ma ko joxee sponsor du ko sol loolu yaakaar naa dafa bàyyi ba làmb ji passé mu koy wax man du ma ñëw fay ko xaalis jox ko sama sponsor mu bañ ko sol bu ko fay solul bu bëree ba pare du ma ko fay ndax li ma ko fay munu ma ko jaayal ci biir munu ma ko fay ma jëbu sponsor du ko sol loolu dafa bàyyi ba làmb ji passé mu door ko wax am na ci droit nag ndax man mosuma gis mbër nga tëggal mbër mi fayek mbër mi mbër mi dem si sponsor di démarché ji ay sponsor man lépp xam naa ko tey fu ma dem dugal fa dossier sponsor ñu ne ma mbër mi indi na fi dossier sponsor ma xam bàyyi xam ne loolu amul problème loolu du dara luñ ko jàppale nañ ko ko jàppalee wërsëgam la waaye nit bu ngeen seqee di liggéey mu yéene la di daj coono yoo xam ne pour lamb ji avancé lamb ji suqaliku yow même boo ko yéenewul nëbb ko sax waroo bàyyi ba lamb ji passé nga koy wax ndax mosul ma wax ne ma moom bëgguloon a son sponsor bi mosu ma ko wax bi lamb ji passé laa door a gis mu def sorti wax ko ndax man su ma neexoon ma ne Sénégal fii laay toog def sama promo combat mun naa toog fii signé ak télé yi may signé signé ak site yi may signé lépp lu ma war a def sama lamb ma def ko sans moom. ñu jàll ci ñu jàll ci ba tey coow làmb ji làmb ji nee naa la coow li dafa bëri détails yi bëri. tey ji nee naa la lu nekku ku lu ne ku nekk nga ca te yow nee nga Gambie sa yaay moo fa nekk Gambie la kon yow Gambie doo fa mbadantaan te doo fa juddu jéeri da bokk ci Gambie sa diggante ak promoteur yi ndax nag olof Ndiaye nee na seytaane waxul dëgg waa yàq na xel tey ji euh, jot nañ am yuñ dégg yaa ngi dégg nee nañ euh, yaa ne promoteur yi dañoo soxor xaw ma te tey loolu dafa jot pour yow nga leeral loolu ndax ne nañ yow yaa ne promoteurs yi euh, dañoo soxor xam nañ ne mun mënuñoo tëgg làmb bu toll nii moo tax ñu yàqal la loolu waxi jamaykee la wala waxu askan wi loolu du samay wax ndax promoteurs yi dañoo soxor mënuñu tëgg làmbu jii moo tax ñu yàqal ma man am naa xel te yaakaar naa internet yu may seetaan su ma wax si site wala ci télé loo xam ne adduna bi dañ koy dégg di ma ci xeeb promoteurs yi mënuñu yàq sama làmb ndax dugguñu ci biir géew bi. yàq làmb ji soufflé wuñu combat ndax dugguñu si biir géew bi di soufflé combat bi ba nit ku nekk lépp loo wax sooy dee sax taxawal ne maa ko wax bi làmb ji jeexee dékk nañ ma micro laaj ma nan laa gisee lii ma ne leen wax dëgg yàlla man damay sant yàlla santaat yàlla bu baax a baax a baax ndax man tollooguma ci làmb fu may jéemee muy sotti damay jéem rek bu sottee ma xam ne sunu borom moo ko sottal bu leneen amee tamit ma xam ne yàlla moo ko dogal bon may leen waaye lamb ju toll nii ak coono yi ci daj en tant ndaw munoon na yàqoo ci neneen lu ay we ndax adduna bi yëpp tey ñu ngi doon bàyyi xel lambu Gambie jour boobu fu waaye mën a nekk ci adduna bi yaa ngi xoolaan lamb ji kon lamb ji warutoon a yàqoo ci loolu ma ne na nag waaye lii ak soxor la ndax bis bu toll nii ay kilifa nekk ci dëkk bi war nañu mënoon a jóg sax ñu waxtaan ñu sofe bés bi moo gën ñu koy yàq ci erreur waaw waaye nag nañ bàyyi xel ne li ma fi def fii ak fukki at promoteur du ko fi def man loolu laa wax ñu ne man maa ne promoteur Gambie dañoo soxor promoteur Gambie ku gis fu ma waxee promoteur Gambie dañoo soxor nañ ko wax ndax man ñu fa nekk ñi samay kilifa lañ ñii samay mag lañ ñii samay xarit lañ kon du ma ne promoteur Gambie dañoo soxor bot su ma amee day nit dangay wax dëgg te yàlla tax mun naa taxaw balaame leen ci benn côté côté bi ma leen di balaame mooy man dem naa fa di tëgg làmb ñoom ñëpp ñu ñëw dem jënd bee di ñëw ci làmb ci pour dugg te nit ki fii Sénégal musuma fi gis ma promoteur ñëw ci làmb ñu koy daggaloo bii ñoom bu ñu daggee bee yàlla def ñu ñëw fekk ma ci porte bi ma ne dama koy cité père Bour ma ne ko Bour a ah wax dëgg yàlla li ngeen def nii rafetluuma ko waru leen a ñëw ci làmb ji naan da ngeen da dagg bee yaa ngi dégg ma ne ko nag lii rafetluuma ko ñun ñoom dañ dagg bee rek ñu dagg mu dugg. bi ñu duggee comme dugg nañ toog ci kaw wàccuñu kenn jàppul si sama promotion combat kenn jàppalewu ma ci liggéey bi suñu demee ba làmb ji am jafe-jafe ma gis leen ñi nekk ci biir géew bi du ñëpp ñuy jege barrière di jege arbitre yi su làmb ji amee jafe-jafe mun naa leen ci bañ a génnee yaa ngi dégg boot man mosuma taxaw fenn ne promoteur Gambie dañ soxor ndax ñëpp samay kilifa lañ te gisuma soxor buñ ma soxoree ba mu wàññi ma dara ndax fii yàlla moo fi nekk même su fekkoon ne dañ ma soxoree yàlla def na ci bis bi jàmm bëri nañ ci jàmm. ba stade bi fees na grand combat bi li ci am yàlla moo ko dogal te loolu njëkkeewu ma ko fa. su fekkoon ne day door am sama combat sax mu naqadi ma waaye Gambie lamb yàgg na faa am demee nii. ñëw ba ci biir géew bi mu demee nii xoyantaan mii bii mooy combat mag Gambien tëgg nañ ko fa ñu dem ba grand bi war a bëree mu yàqu. kon man. mel ni combat ma ak Yaya Jammeh ma Yaya Jammeh moom bàyyi ma si waaye combat ma moom lu mu wér la moom ak leket moom ak leket tamit moom ak nañ waaye lamb ji amul jël amul ci par avertissement la jeexee moom ak France tamit noonu la demee kon lii man du première fois mu dal ma te nit tamit ndaw lépp lu sotte rek sax lu lépp sottee ndoor ah macha allah baaxul kon day baax yàlla gay liggéey ñu la ci ay nattu du ci am nga ciy gis sa bopp man dama ci feer keroog dem naa ba ci biir géew bi ñëw sax di jàpp Baye Mandione di ko xool naan ko demal uyu arbitre bi yaa ngi dégg ñëpp gis nañ ni mu demee kon man bëggoon naa bés bi am ndax comme li ma wax rek làmb ji coono buñ si daj. mu amoon daal moo la gënal. man moo ma gënal coono buñ si daj ak niñ si sonnee lu mat ñaari weer yoo xam ne nii mënu ma def Sénégal des jours mënu ma def Sénégal Gambie deux jours di jaabante daj si coono yu nekk kon làmb ji mu yàqoon ñun yàlla moo ko dogal bon nag du yàq ba pare après ñu bëgg a profité xooluñ lu rafet li nga def. ñu sant la wala ñu gërëm la ci wala ñu encouragé la si ñu bëgg jël ay wax yoo xam ne dañ koy jël dagg ko monté ko pour yàq sa tur wala jaxasal ak askan bi loolu rafetul.